ah man de maître dama am problème. est-ce que yow am na confiance ci waa ji. naa ko loolu te am naa confiance bi bëgg la ma tamit. yow de yow banaa la yow li ñu ma doon wax yépp ndaxte dëgg la. moo tax la yaa bon. yow sañ nga maa def nii yow. foogoon naa ne góor yi mel ni amuñu ci dëkk bi. salaamaaleykum sama mbokk yi sama xarit sama am du jàmm man la seen xarit. maître Maymouna ma fi soit ak lu bes tak ma leen di présenter sama sœur bi di Ami am problème ba tax mu contacter ñu pour ñu jappalé ko Ami na def. ma ngi fi maître. ba yang ci jàmm. maa ngi ci jàmm ba dama bëggoon nga wax askan bi lan mo la fi indi lan ngay ñaxtu luy sa problème pour ñu jappalé la. ah man de maître dama am problème parce que keroog maa ngi gis Facebook bi sa émission mu intéressé ma lool moo tax ma ne expliquer la. parce que damay bëggal teg benn xale bu góor ma bëgg ko lool mais sama parents yi accepté wuñu relation boobu waaw moo tax expliquer la ndax sacrifice bu may def ak moom ndax am na solo wala amul solo. yow am nga ko bëggee waa ji ndax moom bëgg na la noonu. naa ko lool te am naa confiance bi bëgg na ma tamit bëgg na ma trop. waaye euh, xam nga rek nit ñi bu ñu nekkee sa noppi di wax doo mën a xam kan moo lay wax dëgg kan moo la dul wax dëgg moo tax da ngay xel ñaar. léegi suñ ko woowee pour ñu xool exactement fi nga toll ci moom ndax toll na ko ci yow léegi boobaa nooy def. ah man de xam naa ne moom vraiment du ma décevoir parce que moom xam naa ne man rek la bëgg. ah loolu wóor na. wóor na ma moom. Ah, waaw kon baax na léegi dañuy jël numéro ñu jéem ko pour xawal ba xam. waaw d'accord. léegi ñu jël numéro bi voilà defal ma fi numéro bi ok allo. allo waaw. sëñ bi naa def. waaw maa fi. yaa ngi ci jàmm. maa sant bu baax alhamdulilah. waaw man de dama fi amoon benn kado boo xam ne pour yow la. da amoon cadeau pour man. waa bu ma la wala livré. waa xale bi nga gën a bëgg. ci sa àdduna moo fi indi cadeau bu am solo pour ma indi la ko. léegi ko ay góor. waaw waaw jigéen yaa ngi fi di defar di teral seeni copains yi bu baax sax. waaw waaw <laughs> léegi nag dama bëggoon nga jox ma turu xale bi. waaw waaw waaw turu xale bi. waaw waaw ah kooku day kii la Fatou Fatou Fatou la Fatou Gueye. ah. Fatou Gueye du Fatou Gueye. Fatou. Ah, ah? déedéet du du Fatou du Fatou. Fatou. déedéet.

ini aku nagel dulu aja deh ah wow aku aku nagel mortal lagi mortal lagi jam mortal lagi abon yow de yow banaa la yow liñ ma doon wax yëpp ndef tam mortal lagi abon yow sa nga ma def nii yow foogoon naa ni góor yi mel ni amuñu ci dëkk bi yow da yaa bon yow yow baaxuloo sama papa sama yaay yëpp lu ma doon wax kon dëgg la yow da yow dooy góor bu baax yow baaxuloo soo ma dégloo rek ñu jubóo déglu ma. waxal maa ngi lay dégg. allo Ami. waxal. waaw waaw waaw yow yow xam nga ne yow maa ngi yow ñoo far yow lii nii ay ay baab yoo doon. yow maa yow lu ñu faree yow lii nga may fay yow yow lii nga ma war a fay tey yow. yow lii nga ma war a fay tey yow yow li ma la defar yëpp ci àdduna yow li ma la defar yëpp ci àdduna lii nga may fay. non Ami demeewul noonu Pao tamit da ngay déglu. yow de banaa la yow banaa la àdduna àllaaxira def loolu. ay waay maître sama diggante ki ma gën a bëgg yàqu na lii fu ma koy waxee. mais attends mais yow yaa fi ñëw pour ñu dimbali la mais est-ce que xam xalaatoo woon ni fii boo fi ñëwee bu ñu la traité leen sa problème pour nga am ci ndam la mais dugg ci relation ba pare génnaat ci divorce yeeg n'importe quoi mais ni moo ko gën. ay waay ki ma bëgg waaye dem na. waa mbooloo mi dama leen di laaj lan moo ci seen xalaat ci lii. ma bëgg it ngeen commentaire ci ngeen wax exactement xale bu jigéen bi ci lii mu nekk dëgg la wala du dëgg nii la wala du nii. yéen góor ñi ma leen di ñaaxaat lu baree baree bari bàyyi leen di fowe ak xolu xale yu jigéen yi ndax xamuñu dara ba tax ngeen di abusé wu di leen def n'importe quoi ngal la yem leen ci kenn comme ni ma leen ko doon waxee bii passé ku nekk na nga fidèle ak sa partenaire bu ko defee ngeen mën a ànd ànd bu rafet. ànd bu civilisé mais nii ngeen yàq xolu jigéen ñi ba tey ñu am métit di am ay n'importe quel feebar ah yéen tamit yërmande comme ni ma ko waxee woon ci jigéen ñi tamit yërmande bàyyi leen mbaraan yeeg yooyu yem leen na ku ne yem ci sa moroom waa mbooloo mi maa ngi leen di ñaan ngeen aimé te partagé ma bëgg tamit ngeen commentaire bu baax ñu xool kan moo am dëgg ci ñun merci